Première telle édition de la petite foire Boudakar, Dakar du 28 au 31 décembre jeex présidente réseau des femmes leaders du Sénégal mu tiré bilan satisfaisant 8 euh, 8e édition de la petite foire de Dakar Nous démarré en 2018 ba 2022 le 31 décembre on avait quatre jours d'exposition... Nous euh, ñu démarré mercredi nous ñu dem euh, samedi quatre jours d'exposition... Nous avons démarré divers secteurs di yëngu ci entrepreneuriat bi ñi couture transformation bi transformation des produits locaux Nous avons fait aussi pour la deuxième fois ay euh, beneen catégorie bu intégrer intégré ci foire bi mooy les entrepreneurs Ko wax entrepreneur wax euh, ñi nga xam si yàlla dafa def ñu am euh, lago nek ay woy laago mais am jom am fula di yëngu ci entrepreneuriat bi 8e édition bi ñu intégrer leen ci ñu ñëw exposer création euh, une grande satisfaction c'est toujours difficile d'organiser mais machallah on a on a on a pu euh, quand même réussir à tenir l'événement c'était un peu difficile au début mais ñi sant yàlla di remercier ñi nga qui nous si ñom ñoo accompagner euh, ministre de la femme madame docteur Fatou Diagne, nek ministre de la femme ñëw andi fi délégation visiter foire bi accompagner depuis le début di ko remercier di remercier ki nga xamné si moy frère le directeur de Prodac moom aussi jàpp ci bu baax euh, pour réussir foire bi remercier ki nga xam ne si euh, directeur général euh, Abouba, Ba ministère des infrastructures nek sama frère nek sama camarade moom aussi jàpp ci foire bi bu baax a baax. ki nga xamante ne promotrice Akhlam Couture bokk ci exposante yi dat ci yey yàbbi mu jàpp ne foire bi am ci organisation bi ça s'est très bien passé.

ak ci fànn bu nek entrepreneuriat la entrepreneuriat féminin ñu koy encourager vraiment suñu Nous jigéen ñi ñu avons bolé liggéey doxal suñu rew de la femme ci kaddu ki nga xamantene mom la yebal ci occasion foire bi fas yéene réseau des femmes leaders du Sénégal. madame le ministre de la femme docteur Fatou Diané train fi yebal tay cabinet am ak direction de la famille ak la protection des groupes vulnérables pour ñu ñëw teewal ko activité bi euh, xat-xat rek ñëpp xam nañ ne dafa nekkoon ci tournée tournée bu rëy nga xamante ne son excellence le président defoon ko à Tamba dans le cadre tournée économique yooyu mu doon def waaye nag comme nga xamante ne moom jigéen da koo soxal te fépp fu jigéen nekk daf fay bëgg a teew xool seen liggéey xool naka la leen mën a gunge moo tax euh, euh, délégation bi na fi ñëw xool le réseau des femmes yi nga xamante ne mi ngi liggéey di def liggéey bu rafet te mi ngi ñu ngi seen huitième édition loolooy wan ne expérience mi ngi fi xarañ baa ngi fi savoir faire baa ngi fi euh, su ko waxee boo ko gisee nii da ngay xam ne kon c'est une jeune dame entrepreneur euh, huit ans muy def liggéey bi nii dañ ko koy féliciter di ko remercier di wax ne ni kat madame le ministre comme ni nga ko yàggee wax mi ngi ci ginnaaw ñëpp ginnaaw jigéen yëpp pour jàppale leen gunge leen comme les uns comme di ko ko son excellence le président Macky Sall digal. Petite foire de Dakar mu nekk foire ba xamante ne dafa boole ñëpp rawatina ñi nga xamante ne ñooy personnes handicapées. ngir rekk ñu wone seen savoir faire ak expertise thank you